faa jóge atum 2015 ba tey tey ji nag Abdoulaye Sylla moo ko fa wuutu war a yit lijjanti mbiram fiche de parrainage Ousmane Sonko yi Sud Quotidien ne fiche parrainage Ousmane Sonko yooya ak li ci du Ndir wax sax moo tax ñu teggi ko ca bopp wal Sénat Walf Quotidien ne moom sa bopp gi du Ndir woote moo ko jural lii lépp tax la Le Quotidien ne yi ay fichier ci boppam la soppi ci daq gi mu daq ñépp ñi bokkoon ci Sénat seen njiit rawatina di du Ndir mi Abdoulaye Sylla wuutu tey fukki at ak ñeent gannaaw mu jiitee Noppi sànni lañu ko def benn fan dong gannaaw ba mu santee DGE mu jébbal Ousmane Sonko fiche de parrainage ndax jàpp ne loola méngoog yoon bu weesoo coowal Doudou Ndir mi jiite Sénat fukki at ak ñeent te tey ñu tekki ndombal tànkam Vox Populi itam nee na weneen coow am na wi yoon jëm ci Cheikh Awa Balla fal ak Serigne amadu Ndiaye te ñu bari tàmbalee sulli ay lëkkaloo yuñ leen joxtal ak nguur gi njiitu réew mi moom Macky Sall rëq na ndiggu Sénat jamono biñ nekkee ci coowal liste électorale rawatina ak bi dox diggante DGE ak Thierno Bocoum ci enquête gis ci ne Macky Sall ni muy dugalee loxoom ci processus électoral bi dafa ëpp ba yegg ci lool moom Macky dàq na ñoo xam ne seen mandat jeex na boobaak léegi am na fanweeri weer Les Échos moo ni waxee jàpp ca cëppaandaw la ne la waral ñu dàq du Ndir ak ay ñoñam mooy mere leen ndax liñ ne nanu jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage loola source a na noppeegunu ca woon sax ndax avocat yi Sonko yóbbuwaatoon nañ weneen càkkuteef ca Sénat te Doudou Ndir ak i ñoñam démb ca ci seen kaw ñu tekki seen ndombal tànk waaye fi ko Macky defee ak ni mu ko defee moo jaaxal lii quotidien jaaxalit yoor yoor bi bi lépp journal ne Macky Sall dafa soppi arbitre jamono ji jongante bi tàmbalee la tribune ne li ko waral du leen lu dul du Ndir lim ne nan jox Ousmane Sonko fiche de parrainage mu mën a wuti parrain bokk ci élection présidentielle bi président sénat bu bees bi nag yéeni kaay bi nee na Abdoulaye la tudd kañu toftal ca moom di Ndari Touré magistrat bu retraité la Mamadou Ibra Kane ne woon da cay bokk la ko waral journal bi di bés bi nee na mooy candidat yi bari ba jéggi dayoo Mamadou Ibra Kane boroom demee sa maintenant gis ne yëf yi dafa dem sax ba tàmbalee ñàkkal solo élection présidentielle candidat Benno Bokk Yaakaar ci booba lépp élection l'info gis na ne dañ koo nàkkal moom amadu Ba ndax ka gënoon a foor ci wujjami ci wàll politique mi ngi ci kaso bi ñeneen ña kun ca karot ñoo ngi lay bundu xataal yéene kaay bi ne fi mu ne kay Macky Sall moom da koo xàllal yoon wu leer naññ moom Macky yelwaanub ñetteelu mandaam bi daa këpp ndax askan wi ñu baree bari ànduñu ci woon waaye lépp lum ñàkkoon rek journal bi gis na ne fas na ko yéene jox Amadou Ba Souleymane Ndiaye njiital SAPCO booba jamono ci l'observateur ma nga yàq lu mel ni xemee yeneen candidat yi fàqee ci Benno Bokk Yaakaar samp seenuk ndënd mu ne ñoom ñépp ay traiteur lañ woorkat yu mag SAPCO nag moom Souleymane Ndiaye nee na mën naa jëlaat suuf seen joxoon ay kon fi ak ñu cay àgg l'observateur teg na loola wax ci wér-gu-yaramu Ousmane Sonko ak tiitaange yi ci am booba jamono réew mi quotidien di wax ci lu doy waar li xewoon Kaolack di néewub ñu ne góor jigéen sulli ko ba nuppi taal ko journal bi ne procureur ma ngay teengal yëf ya ci ñu ñu teg loxo juróom yóbbu nañ leen ci kaso ba démb fukk yeneen yan ci teg loxo ña ngay xaar ba xam fu nuy mujjeeg yoon seen ñooñ yi njàpp tëj ci kaso bi ten jàpp ne du yoon moo tax jàngalekat yi ñi bokk ci sayems kusems rawatina fas yéenee gerew juróom-ñaari fan weeru novembre nee nañu bés la boo xam ni kenn du ci jàng journée école morte lañ ko tuddee ci réew mi quotidien 24 heures ne bu weesoo seen ñooñ yan jàpp ñaxtu borom oto yi roñ mbalit yi itam yéene kaay yi nee na ña ngay ñaxtu fukk Quotidien na ñaxtu googaa tax dëkk bi foo jaar mbalit la libération dañu xamal ne luy tolloo junniy sénégalais yu jaar ci géej gi yegg Maroc ten wallu seen gaal fan yu nu weesoo ñi ngi dund ay jafe-jafe yu doy waar ca Dakhla ci ay centre d'accueil yu fees dell lanu nekk di xaar ñu delloo si leen ci réew mi bokk na ca ñoom luy tolloog fanweeri soxna ak téeméeri ndaw yeneen ñetti gaal yu yàpp ñetti téeméer ak juróom-ñett ci ay doomi Sénégal it bi ne wàllu nañ ca Pikine ak Parcelles moom daanaka kenn noo yeetut le quotidien ne lamb ji war a dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé moo ko waral lamb jooja ñu ngi koy càmbar ci l'observateur ne ku juum daanu Walf Quotidien moom sëgg ci mbër mu ne fa nga amee dooleeg fa nga ko néewlee sunu lamb ne bés bu rëy bi dimanche la Ama ñoo ngi ko convoqué bu 16h45 jotee mooy borom turbine A Modou Lo borom turbine B yéene kaay bi nee na juróomi waxtu la nu ko wax na yegsi ci lamb ji sunu lambit jox na kàddu Moustapha Gueye mi ne jël mën naa am ci diggante xeex